di ñaan yàlla li ñu koy jaamu mu néew mu bari yàlla ñu ko yàlla nangul te mu tolloo ba ñu koo nangul ci ñu ko defee euh, mbokk yi tey nag ñu ñëw ak yéen ci suñu émission juróom-benneelu tomb di ci waxtaan ci ngëneel yi nga xam ne mi ngi nekk ci fadilatu sallallahu alayhi wa sallam euh, mbokk yi waxoon nañ leen ci suñu jataay yi la passé ne leen sallallahu alayhi wa lu yàlla bind moo ko ci gënal ndax yàlla moo ko xoolal boppam ba mu ne ko ni ko bind naa la ci leeru bopp yàlla moo ñu sant ne ñu nañu julli ci moom parce que yàlla njëkk a julli ci sallallahu alayhi wa sallam ndax moo ne ñu inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon mbokk yi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du bidaa julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam farata la boo xam ne yàllaa ko njëkk a jënde yàllaa ko njëkk a julli ci sallallahu alayhi wa sallam julli gi yàlla julli ci moom nag mooy yàlla yemul ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kese dafa julli ci moom ne malaayika yi julli leen ci moom malaayika yi julli ci moom ba noppi yàlla ne yéen jullit ñi na ngeen julli ci sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk julli ci yonent bi di farata boo xam ne nit ki mënul jaamu yàlla te du ko def te yonent bi sallallahu alayhi wa ci mbaaxam daan nañu wax nañu ah, tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi azim kon mbokk yi salaatu ala nabi luñ ci mën nañ koy def ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam neewoon na aksiru salaata alayya fa inna aksarukum salaata alayya aksarukum abwaajan fi l janna yonentu sallallahu alayhi wa sallam neewoon na nañu bari lu ñuy julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam ndax ku ëpp loo julli ci moom yowmal xiyaam bu ñu duggee aljanna yaa fay ëpp ay soxna kon mbokk yi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na solo waaye nag mooy julli goo xam ne noo ko mën a defee daañu ko jël nekkal ca douche ba nekkal ca waañ wa nekkal ca saal ba nekkal ci lu la neex soo jullee ci yonent bi dañ koy jël ndax addimi salaata ala nabii muhammadin fa li annaha maqbulatun bila taraddudi amaluna bayna alqabuli walraddi illa alsalaatu ala nabii muhammadin sunu maam ne fa kayfa aqaafu lyawma fa kayfa aqaafu nnaara wallahu qailun fa sallu ala almuxtaari fi diini mardiya sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu ne saxalal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo saxalee julli ci yonent bi looloo soxla da nga ko am mu ne naka laay ragalee safara man naka laay ragalee safara te sopp yonent bi des ci sama xol bi naka laay ragalee safara te yàlla wax ni julli leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma musal leen ci safara mbokk yi dañu wax ni julli goo def mën nañ la ko delloo jaamu yàlla goo def mën nañ la ko delloo ba mu des salaatu ala nabi kooku dañ koy julli ci xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ngëneelam bokk na ci bi mu ñëwagul ci àddina ci la malaayika yi daan julli ci moom nga yëg ne sax say euh, sunu maam aadama alayhi salaam keroog bi nga xam ne yàllaa ngi koy may sunu maam Hawa la mu ko cangee woon mooy salaatu ala nabi kon bokk na ci ya nga xam ne euh, jullit war na koo mën a def te yaakaar ca payug yàlla ndax yàlla kat lu mu digle ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola farata la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni aksiru salaata alayya fii kulli masaaxil jumua yonent bi nee na boo demee ci téere bu ñuy wax afdalu salawaati wa salaati ala sayidi saadaat ma nga cay wax ni man yonent sallallahu alayhi wa sallam ku xëy julli ci man fukki yoon ngoon nga julli ci man fukki yoon yowmal qiyaam amuloo ak yàlla affaire man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga am ak kon keroog bi muy dem ci isra wal miraaj wa taala la boromam mooy daf ko sàbbaal ba noppi ne ko sell ñeel na yàlla teey ñeel na yàlla ab dal ñeel na yàlla yàlla delloo ko nuyoo ba ne ko assalaamu alayka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu yàlla rek a baax yàlla ne ko yow yàlla na jàmm nekk ci yow yow yonent bi malaayika ya ko fekke woon yépp ne ko ñun ñu ngi julli ci yow yu baale leen ñu géew moo tax ñu jël taaya dugal ko ci biir julli ngir mbaax bu yonent bi am sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi te yonent bi daana wax man julli goo xam ne julli gu dagg la julli gu dagg wala julli gu wéet mooy lan mooy ne allahuma salli ala muhammadin képp yem ca dañ koy boole waale ay ñoñom boole ca ay saxaabaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xol bu ko bëgg am nga sens ndax mahabbatuhu yumnun sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na kaaraange mahabbatuhu amnun sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na confiance mahabbatuhu rahmatun sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na yërmande àddina ak àllaaxira sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañu ko woddee nit sax mu doon balaanum leer yowmal qiyaama kon mbokk yi sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na solo te dañuy wax ne ku la tax gën koo gënul war nga koo fàttaliku foo mën a toll di ko màggal ah, di ko sant di ko ñaanal ndax julli goo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana takkaat julli ga ba mu mel na nga ko defee woon fulal la ko ba mu ëpp la nga defoon ñu delloowaat la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man salla alayya marratan salla alayhi llahu ashra marra man salla alayya ashra marra salla alayhi llahu miata marra man salla alayya miata marra xarama allahu jasadahu min annaar yal nañu ko yàlla defal mbokk yi yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala ci mbaaxam yonent bi nee na ku julli ci man benn yoon yàlla dana julli ci yow fukki yoon ku julli ci man fukki yoon yàlla dana julli ci yow téeméeri yoon ku julli ci man téeméeri yoon yàlla dana julli ci yow junni yoon ku julli ci man julli yoon yàlla xaraamal sa yaram safara yàlla nañu ko yàlla defal te dañuy wax ni bëgg yonent bi mbokk yi ci la lépp nekk ci la fajug aajo nekk ci la texe nekk ndax boo seetee réew mi ñu nekk di ci dund suñu mag ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar li ñu am lépp ñu ngi ko am ci fadilatu euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ñu jëlee li ñu am lépp yiw wu ñu am mu ne ci lañ ko jëlee moo tax sunu maam Cheikh El Hadj wax ko ca woyam wane euh, fa wa matxul Moustapha fawzun wa gunmun fa ma xarajun alayhi min anini tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooma ci nekk aw yiwa ci nekk yiw woo xam ne boo ko màngee kenn xamul nu mu toll moo nekk ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi yàlla ñu njëkk a julliloo ci yonent bi nañ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo mën a jullee ci moom nag baax na ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne ana min allahi wal muminuuna minni man maag jullit ñi ñoo am affaire waaye man maag yàlla ñoo am affaire waaye jullit ñëpp man lañ am ak affaire ndax sallallahu alayhi wa sallam kaana raufan bil muminina soo jàngee laqad jaakum da ca jeexital ba loola fek cay fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem jullit ñi moo gardaajo seen mbir te yonent bi nee na sama xeet seen jëf ñu ma ko gaaral guddi altine gu nekk danaa càmbar la ca baax ma bàyyi mu jàll la ca bon ma jéggalul leen ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon na sama dund yiw la sama faatu yiw la ndax bi may dund ak yéen lu ngeen war a jëfandikoo pour yàlla yërëm leen maa nga ca waaye bi ma faatoo tamit danaa càmbar seeni jëf lu ca baaxul ma settantalal leen ko te jéggalul leen seen borom kon mbokk yi kooku mooy sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa koo mën a jublu ci àddina rek bu dëgmalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lam bëgg du ko am ndax moom mooy yaa xayra man yammama al aafuuna saaxatahu saayan wa fawqa muutuuna al ayniqi rusumi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jar na war ci gileem di ko calal ba àgg ca ëttam ba ndax boo fa sippee say bagage da nga xam ne ki nga seet si mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax waykat ba ne ko fa lawlaaka maa taabal ilaahu li aadamin bu dul woon ak yow sallallahu alayhi wa sallam yàlla du jéggal maam aadama ndax keroog bi mu tooñee yëg ne def na motif yàlla dàq ko aljanna daf ne ko maa ngi lay jéggalu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko foo ko xamee kooku ñëwagul mu ne ko musumaa gis benn mbedd ci aljanna wala benn xobu garab lu dul ni bind nga sa tur boole ak turam muy benn mooy yonent boo xam ne turam la yàlla def shaqiqa ak turam boole leen ñoom ñaar ñuy benn moo tax ñu ne la lu waaye mën a wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa lu dul ne yàlla nga rek wax jooja buy fenn kon sallallahu alayhi wa sallam moo nekk noonu lu yonent am lu ne ci moom nga ko amee ndax bihi taabal ilahu ala abina bihi najja musa min quruni bihi zunnuni zayala batna nuuni kon yonent baa ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam na ñuy julli ci moom rawatina ci weeru koor wu tedd wi nga xam ne ci la ñu nekk yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu